jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax kontaan nañ ci yéen bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii biir wasaare ci émission bu mag bi nga xamante ni nii mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci fan si su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci mbër yi su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci supporter yi nga xamante ni nii eh, ñooy andi mbër yi tey nag mbokk yi ma dal fi ñaari xale yoo xamante ni ay ndaanaan lañ su ma nee ay ndaanaan mu nekk ay xale yoo xamante ni nii làmb da a bàyyi xel ndax eh, sama gauche maa ngi ki nga xamante ni mooy Milkzo sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni nii mooy Jeex Jàmm ñaari xale yi mbokk yi seen combat dafa taxaw mu nekk combat boo xamante ni combat espoir la tey ma dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb yi bëgg waxtaan ak ñoom ci seen carrière bëgg waxtaan ak ñoom ñoom ñaar ci combat bi nga xamante ni moom leen euh, na jëflante ndax nekk na ay xale yoo xamante nii bëggante nañu te xiifante nañu maa ngi ci nuyu ki nga xamante ni mooy Jamaïcain moom mi taxawal boobu combat ma bàyyi la ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi Milkzo nuyu naa la. ñu ngi lay fay xam nga di nuyu Sénégal yëpp di nuyu gars yi toog yëpp di nuyu sama adversaire jeex jaamu xam nga te tamit di jàll suñ papa ju génn àdduna barki démb. Hmm. muy père de muy sama papa muy sama lépp. moom defaral sama licence defaral ma lépp. waa ah, depuis mu amee dix ans ba léegi moom lañ ma may ma nekk si moom ba ni may amee vingt et xam nga di ko jaal sama mag Balla Gaye ak Sadio 2 ak sama rek El Hadj de Falla yi mhm. xam nga di leen ko jaale di ko jaale nag Sénégal waaw ah, di leen wax nag manqué na ma nag bu baax a baax ndax dafa am noonu modifié si man ko quoi waaw xam nga di nuyu tamit bépp kër diine bu fi nekk muy Murit Laayeen Xaadir Tijaan xam nga nag di waaj màggal bu baax di nuyu waa Touba rek bu baax a baax waaw di nuyu sama adversaire mi ak Kër Massar bi mu jugee Kër Massar Boune boulangerie 2000 waaw ak sama leader bi DG Souleymane Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax ndax ba ndox bi ñëwee moom rek moo fa yóndee ñu ko gaz wàll Kër Masar kàcce moo fa def jëlee ndox bi gisuñu kenn état du meer Kër Masar du kenn benn Souleymane Ndiaye moo jàppale DG di ko nuyu bu baax a baax di sant sama yaay sant sama papa. ah foofu de ndox mi bàyyi woon na ndax man mii dem naa fa mais gis naa xale yi nañu génnee takku euh, jàppale gars yi ci ndox mi bu baax a baax. waaw lu wér xam nga lu gën a lu gën a bon ci quartier. Hmm. mooy ñu far la yow njëriñoo fa dara kenn mësul gis sa présence si koñ bi xam nga demoon nañ sax ba volonté wu ne carrément maire bu ñëwee foofu oto bu mu yor dañuy toj oto dañ koy yàq non barke Serigne Saliou man maa ko jiite man mil gisoo daw ma loolu bul dugg ci loolu non daw ma loolu bul dugg ci loolu non dañoo c'est que dañoo soxla yeneen nit xam nga nit dafa am fooy toll euh, sa statut dafa am fu muy yegg am na yoo xamante ni même bu ko booy dee def même bu fekkee ànd nga ci ñoom sax bul ànd ak ñoom ci yàq parce que fi sa tur mën a yegg ñoom seen bos yeggul foofu bul dugg ci loolu mer nag ku nekk am nga droit nga manifester wu wala nga wane ne lii ngay def neexuñu wala bëgguñu ko mais bu yàq moom mën naa ñàkk. non loolu wér mais da ngay gis ay yeneen maire yu jóge feneen di ñëw ba Kër Massar bàyyi seen gox ñëw ba Kër Massar di xool moom mi jiite Kër Massar mënul ñëw sax xool mi ni kàccu Double Less bokkul ci Kër Massar quoi. mais nag DG Souleymane Ndiaye moo ñuy jàppale moo ñuy may ñu jënd gasoil barke Serigne Saliou moo yëkkati xaalisam jox ñu jënd essence pour pompe yi maire dara lu mu ci def loolu dafa ñaaw quoi te suñ koñ quartier Lumb quartier ay ñaari kër moo fa des muy kër Double Less ak kër Poids ñëpp a tuxu ñeneen ñëpp kenn am fu mu dëkk ñu ñu ay mamiloor ñi tas ñi dem fu ne actuellement ñu kër boo fa diggee ndox fii la yem te loolu dafa ñaaw. loolu kay teg naa ci di ñaan tamit autorité yëpp ñu ñëw jàppale ñu tamit xam nga. ku ci mel ni Souleymane Ndiaye tamit DG ñu koy mu ñëw jàppale ñu. xam nga di ko wax nag mu waaj 18 safari xam nga lépp baa nañ ko ci loxoom quoi ñu jàppale si pompe bi mu ñëw jàppale ñu noonu. dëgg la naa la. jeex jeex jeex fay di nuyu yeneen gars yi nekk fi nii di nuyu Baye Fall di nuyu Maako Mbës mi ñaandal di képp kuy suivre Wassare Lamb wala ngay suivre Jeex Jàmm lay nuyu di waajo waay di nuyu ñëpp nag. Euh, di sant euh, gars yi ñuy jàppale suñu combat nag mooy loolu ñu ngi nuyu ki nga xam ni maam Thierno cosmétique borom Liberté 6 di nuyu Pape Thiat Grand Dakar bu Didey di nuyu Amsatu borom Didey di nuyu Dibu Essar xam nga di nuyu euh, Modou di nuyu gaa yëpp baa Fall yëpp mafia yëpp ñu ngi leen nuyu di suñu grand taala suñu grand taala kenn la ci ñun day jàpp suñu combat bu baax baax taala kolobaan di nuyu grand Sian di nuyu euh, gaa yi may jàppale daal su ma limee damay juum was jàmbaar ku jëmee ne Modou Fall jeex jàmm bu tuubaa ñu ngi koy bëgg bu baax baax moom day son suñu combat sa combat lay dagg paasam ñëw fekk suñu bët town xam nga jàpp ñu suñu combat ñëw yóbbu ñu stade mooy loolu. di sant gars yëpp waaw di sant Milki Sow moom mu jël suñu avance fas yéene bëre bëre ak ñun ñoo koy sant moom tamit mooy loolu. mais ñaata combat nga jot a def. man deux deux combats laa defoon. def def six combats. dala may sens mais tamit euh, xëy na booy moom bu nekkee ci yoon di trouvé da nga koy jël pour freiner ko. xëy na loolu tax mu jël sama avance. dama dégg léegi nga ne ma euh, ñu bari dañuy bëgg di bëre ak man. dëgg la noonu la demee na ñoo xam ne ba ni bëri man bëreegu ma xëy na léegi ñu ngi dem bay bay laaj jeex jàmm kon loolu dama koy sant yàlla xëy na nag defu ma fi dara mais xëy na tamit jàpp na ne booy bi war na mën a dañ koy jéem nga am deux combats nga am deux combats moom six combats bëgg laa daan mu yóbbu ko fenn loolu mënu nekk ah, mën na ko yóbbu fenn kay parce que jeex jàmm ñëpp koy bàyyi xel saa yu duggee stade saa yu génnee ñëpp ay wax loolu moo tax mu jël combat bi rek. Hmm. nga sa waaw ah, lu mu wax dëgg la xam nga mais tey jii lu mu wax ñëpp koy baaxel moom kan moo koy baaxel lan la fi def bañ koy baaxel xam amaan tamit boo gisee la moo doon jël ko amaan fi ñu ak tamit boo xam ni ñooñu si dugal quoi mais du palmarès du dara xam nga jeex jaamu carrément man moom su ma magul man maguma ko man laa judd 8 avril. laa dugg yaa ngi comprendre mm-hmm. kon tey jii nii jeex jaam yi amul fu ma ko daane amul fu ma mën a yóbbu. mais lan nga jël ko. parce que tamit parce que tamit nit am deux combats nga am six combats. ëlbatiku di bëre ak moom ñaanu ma ko yàlla bu la daanoon tey naka lay demee. waaw tey xam nga làmb moo dépassé foofu làmb kenn xoolatul si niveau combat yi xam nga dañuy xool si tur ak ki nga xam ne am na tur public waaw mais jeex jaamu du public bu mu ëpp du tur ba mu ëpp man sama tur dafa ma jiitu avant sax muy bëre. ndax mënu maa nekk xale ba léegi di ànd ak Balla Gaye 2 buy baax mu nekk si kanamam nekk xale ba léegi di ànd ak Sa Thiès 2 heure buy baax ma nekk si kanamam xam man sama tur dafa jug bu yàgg amaa jeex jaamu kon booy nii gisuñu leen loo xam ni carrément mun nañ ko te man mënu ma ko lépp loo xalaat si làmb ji muy sañ-sañ muy lépp man maa la ko ëpp ni may waxee yow nii dem si guddi laa jóge Touba barke Serigne Saliou dem si émission moom indi waaw loolu ma ma ba léegi wéru moom dama dama demoon faju barke alxuraan commencé gu ma sax sukk naan damay enterrement mais yaa ngi bu baax a baax sant yàlla bu bëri ah, damay bañ damay bañ damay bañ ñëw mu demee neneen nga ne dama feebaroon wala dama nangamoon yooyu laay bañ déggoo ma de waaw kii làmb ji nee ko lu ma wax dafa leer nee naa ko vitamine bu nduróog biofa sax du ma ko naan biofaar xam nga biofaar day wàccee Fatick ma sax du ma ko naan mu may def sama yaram dara <laughs> sama combat maag fëgal bu ngor bu ma jógee dama fa ñëw indi volume bu baaxul indi état bu baaxul indi loo xam ne miinu ko ma ñëw taf taf ma gaaw a sonn xam nga ma def kaat ab yi loolu métti ma mais kii du ma ko indil sax nee wax soixante-dix kilos laa ko indil dinaa ko bëreloo ba mu xoox moom nag na musculé na def lu ko neex mais moo jàppee dama koy duma dama koy daan. da ngaa gis ne dafa commencé musculé loolu moom moom la moom la ko waa man mu liggéey man l'essentiel leen mooy man li may indi ak moom lu mu tool man dinaa ko si manipuler dinaa ko duma dinaa ko daan loolu moo ma ñor. jeex yaa ngi dégg. waaw maa ngi dégg li mu wax soixante-dix kilos yi muy indi moom la intéressé parce que moom nee na moom moom moo. ak man moo tax ma bëgg a wàññi soixante-dix kilos mais man soixante-dix kilos ak cent kilos man li may joob laa gëm li may def laa gëm li may bëri laa gëm. mais est nga ne est-ce que xam nga ne daan moom am na fu mu la mën yóbbu ci làmb. incha allah dinaa ko du yomb de. bu nee yàlla na non man làmb parce ni ma ni ma déggee muy waxee nii ca la mu jógee neexu ko te bëgg na ko rectifier balaa leneen da ca am. waaw noonu la demee parce que jàpp na ne fi mu jógee moom jàpp na ne fii mu jëm nii moo gën a sedd fi mu jógee loola war a mu jël avance jeex am jàpp na jeex jaam benn nooy la boo xam ne da ngay jaar ci kawam rek jàll te mooy loolu. mais nag moo la jiitu ci làmb de moo la jiitu ci làmb yu bari moo la ci moo moo lay koy defee. loolu na nee ay combat troisième combat man bëreeguma kon xëy bu yàlla defee ba ma ba ba ma ban jox ma ko ma war a bëreeg moom dama ci war a liggéey. wane ci jom lan lan lan la ja lan la la jaral boobu. non man làmb moo ma jaral. làmb làmb moo ma jaral parce que man dugguma ci làmb ngir doon bër damaa dugg ci làmb ngir bëgg a bëre. loolu moo ma dugal ci làmb kon xëy na man bu doon ñaari combat wala ñetti combat juru may entraîné barke Serigne Fall Mbacké mais damay entraîné pour di ma pour Milki Zo. naa ni combat bi dina mën a neex. dama dégg mu ne xaw ma si biir wax naan moom ay état tax boole wala yeneen yeneen yaa ngi ko mën hmm. man ñi ma bëreel musuma bëreel sama morom sama premier combat maag barbar ba écrit kaay baax bu mu sumee koo dañu daf may rey combat bi motul une minute. sama deuxième combat maag Tafaleer. billaahi 30 secondes sax moo doon. Tafaleer Tafaleer numéro 2 bu Bawol. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. bépp xarañ bi ma jógee nii bi ma jël. ba ma ko jël ñëpp naan daf may rey. am na na plus de 20 benn défaite la am ñëpp naan daf may rey sama ménageurs yi ñëpp mer ma delloo combat bi ma leen du ma ko delloo góor la may góor bu ma mënee na ma rey. man soo ma jëlee soo ma mënee suñ ñëwee si géew bi nag ma rey mais man l'essentiel lu ma mën dinaa ko def dinaa wane njàmbaar dinaa wane lépp waaw deux défaites nag laa am sama deux deux défaites yëpp wane ma si xam nga ay tapet wane sama combat ma ak doomu yoof ku ne gis na nu mu demee damaa bëre bëre bëre ba naa ko mujj moo ma jàpp ma ñàkk combat boobu mais jeex jàmm mi incha allah rabi dinaa ko indi lu métti. billaahi fu mu nekk dinaa ko fekk dinaa ko duma dinaa ko daan. Milizor loo indi ma seere ko. xam nga fan yee dama ko seeraan man damay pare pour lépp fan yee dama ko seeraan bañ a wax sax damay toog groupe WhatsApp damay toog ay ay deux mois du ma si vocal. fan yee ma seeraan ko si benn émission. loolu moom xanaa léegi nga ko bàyyi. léegi laa ko bàyyi <laughs> xam nga ndax mooy loolu quoi booy dañoo bëri wax. xam nga des fois da ngay nekk si kii bi ñu nekk di la dépassé xam ma ku nekk di wax lu ne ay seeni booy di wax man booy rek booyoon moo leen boole ba sonn. ndax dama xam ne dañ lay envoyé message dañ may message am na benn booyam bu bu soof sax xam nga mujj dama xam ni kii nekkul ma ak moom dama ko boole man ak seen mbër bii la seen mbër bi la am lu may waxal keroog seetaat naa ko mu def benn interview xaw ma fan la xam nga toog si takk ay veeram di dof dof di ngaaxa noonu xam nga di wax ay waxu dofam man maa ngi nii Milka Sow mu ngi nii lépp loo doon wax foofu. man su ma ragaloon du ma lekk sa avance barke Serigne Ba ma saa yu ma demee bay xool nit ci làmb di ko ragal ma teg sama ngeen bàyyi bëre barke alxuraan karim mais yan wax la doon wax yan wax la doon wax. non dafa toog foofu naan ay Milka Sow tapet la xam xam na lu tax mu jël ma nii woog dafa foog ne man damaa nooy ak booyam yi tiim ko xam nga biir koñom mu nekk di wax lu ko neex jeex jaam mu buy wax man sax ñëw ma xool du ma xool waaw xooloogu la de parce que Serigne Saliou xooloogu la moom man gis ma sama morom buy taxaw billaay wala du question na dara laajteel Kër ni carrément gis nga man bëri bu may def nii billaahi musul woon nekk sama ambition ma dee da doon jël da doon jël égrém fa ay ponkal billaahi ñu ñëw fekk ñu dine foofu ma leen fooyee comme xale ba ponkal di mer mu ne ma déwoon neex naqari da ngay bëre papam jël xaalisam dagal ma licence ma defar licence su ma jugee Kër Massar da nga yaakaar ne Balla Gaye moo fay jugee xam nga Kër Massar foofu à part Sa ak Fils de Falaye man maa fay benn mbër xam nga di sant nag ñoom Fils de Falaye ñoom Boulon ñëpp dañu booroo sama ginnaaw kontaan naa trop. xam nga amaana nag dama leen ëpp combat mais ñoom ay champion lañ di leen ñaanal yàlla tamit xam nga yàlla defal leen ay ndami ndam muy Boulon Fils de ñoom Tampo Ndaw ñoom Libidoor xam nga waa yëpp boo fa jugee gis naa nu ñuy nu ñuy def ci man kontaan naa trop nag kii dinaa ko jàpp dinaa ko duma naka ngay toogee sa koñ di waxtaan mu neex nga ñëw ñeme woo xool sa waay. man mil gisoo nee naa ah, su ma ko ragaloon dama lekk avance mais des fois nag di nga di nga di nga bëgg a bëri lekk avance am te fekk ndey ndeysaan xamuloo sax loolu la dugal ci moom. nee naa la nii nii. Hmm. taxu ñu maa daj la métti. nee la pour li sama kanam ñoo ñoo tax may daj la métti mais pour ñii nii ñii ay bagages rek yoo xam ne dañ leen di defaree teg leen na leen dem suñu yoon. loolu métti non man moom làmb làmb ñëpp xam na ne làmb làmb yombut te làmb man jàpp naa biir estade moo ci gën a yomb ci làmb man boog ni may joowee hmm. biir estade moo ma gën a la ngay daj avant làmb ji mooy gën a metti fuuf ko boo ñëwee ci digg noonu la demee nag la may daj la may daj la ma koy tegoo ku ma ko teg estade gisuma ko ma koy teg estade la may daj fële gisuma ko ma koy teg estade kon xëy na fële moo gën a metti estade ci man man loolu laa jàpp loolu laa combat bi kañ la taxawoon noonu yaakaar naa bi avant laa am jiite dafa taxaw tuuti rek affaire gars yi doog a arrêté waat affaire naka nga doon waajee ak moment bi dafa mel ni seen combat bi jàppal nañ ko daal fi mu toll nii. non moom am combat ñaar combat day ñëw rek ñu mottali. fàttali fan la damaa dégg sa sax pour sélectionner maanaam nekkagul ci combat bi. loolu moom la concerné loolu moom la concerné en bu jaabee ne jeex jaamu yomb na day nax boppam bay moom mu tel koo def ci boppam mu dem entraîné ji. Jeex Caam musuma musuma jàpp ni musuma jàpp ni damay bëri mbër bu yomb bëgguma ko sax mais avant may entrement fa ama am sante ba pare dama jóge sama combat ay tolof tolof topp ma si loolu groupe WhatsApp bu nekk gis na ko lu ma daloon sama combat maag yow la 14 août billaahi da doon fekk sama tànk bi mu ngi toll na ko neex mais dama doon ñëw bëri si far force te dama la siy daan. waa lool yow la concerné man du ma du ma ñàkk a wér di bëri parce que yow ma samay ma ñëw ma ci làmb pour di nii de. ñëwaguma ci làmb pour di daanu nii incha allah ci kanam dama bëgg di daanu incha allah yow Milky Sow le 21 novembre di nga xam ne Jeex Jaam du ñi nga dajaloon. xam nga man lan laa di wax fii à chaque fois xam nga man ngir yàlla rek booy wax ak man del fii di ma xool. ma xam ne yow wax fu ma neexee man góor yàlla ay waxal xam nga mais tey doo wax ak man sëgg ci bi sëgg ci taawul bi man ngay waxal de. jeex jàmm si xool man la neex Milky Sow dama lay xamal ne le 21 man ngay waxal mais mais garaawul ay xoolal yi nii ay deuxième la. Milson jàppal ne dama la ragal bala fente jàppal loolu man bu ma gisee sama moroomu góor mu taxaw sama kanam ma am lu may sikki sa man ma bàyyi bëre wala ma wodd ji taxir di dox ci mbedd bi. le 21 luy xew si biir làmb luy xew si ñaar ba làmb ji man maa koy def. waaw loolu yaa koy wax mosoo gis sama combat. ba jëf ba jëf ba jëf ba jëf le 21 incha allah rek xam nga yow la nga fa am ñëw taxaw ma jàpp la bëre daan dem ñibbi. incha allah yàlla dafa leer bu soobee yàlla ak yonte bi nekkul yaa may téye jeex jaamu. waaw loolu may ma jaar gaa yi fi jaaroon rek laa jaar yow. jeex jaamu yow yow yow lan ma war a mën a daanee yow bu ñuy bëre lan du xeex. du bëre yaa ngi ko mën du doole ba mu ëpp. da ngay wax ma du xeex du bëre du dara wax moo leen a garaaw moom na ne ëpp ma ko doole daax ma ko bëre na jàpp naa la boo ko ëppul doole boo ko ëppul doole dàqoo ko ba mënoo koo daan. waaw moom loolu la gis. non déedéet doole dàqoo ko ba mënoo koo daan. xam nga tey jii moo la benn affaire ñoom booy àll yi xaw ma mbaawar mbaawar la xaw ma. ñoom xam nga ñoom fa la wér seen combat lépp si ay musique. da leen fay da nga leen di fay 500 ma dem di entraîné ji. dégg nga moom de da nga leen di fay 500 ah, mille. ma bëggoon musique du ma dem di entraîné mooy bëre ba léegi. yaa ngi ko mën a leen laa ñëw entraîné ñëw indil booy lu métti teg leen lu métti jàpp ko duma ko daan ko estat dinaa ñëw dinaa am ay ñaan dama am ay ñaan dama ay paa yu baax yu may ñaanal ay taalibe seex ay ñoom paa Ousmane Niang taalibe seex yi xam nga ay borom daaru Sadio sax sama combat dañuy ànd ba sëñ Abdou Karim xam nga mu sukk ñaanal ma dama am ñaan moom macha allah xam nga ñaanu koñ bi rek paa yeeg maire yi ñu ñu may santé di ma gërëm loolu rek ay ñaan la mm-hmm. mais du ma jël sama xaalis du ma yàqagum si àll bi xam nga ma yàqu waaye te combat bi ñoom noonu la ñuy def. waaw Milisa jàppal loolu lañ gëm. man Mbawar Mbawar laa 100 pour cent di bigge wala waa Mbawar yëpp ñu ngi leen nii nuyu mais Milisa naa la xamal leen man musique musique fu ma fekk fa la may bàyyee su ma gëmoon musique du ma jóg di yow di ba pare jëlaat sama xaalis di ko fay ci sëriñ dama wax lu leer boo jaafee ne nag musique laa teg ci combat bi yaa la teg lu métti yow. lamu ji ngembul man maa la sant ngembul ngembul lu la neex yaa ngi comprendre nga indi entraînement bu la neex nga indi physique bu la neex ma ñëw jàppale duma la daan la jël bu yomb. Milzo garaawul man lu ma indi doo ma ko wax man maa wax lu ma. soo man ak yow ñooy bëre. de man li ma indi man daf la war a concerner yow léegi dafa war a concerner yàlla yàlla tere man dama gëm barki la concerné wul dina la lor de ba yeboo lu leer naa la wax man kii lii lay liggéey lii lay def man xam na laa gëm lii laay liggéey te su ma ñëwee Milzo lii laa lay def par force suñ kër laay toog na booy nii laay def milki zoo. jërëjëf bu ñëwee yow lan nga fi lan nga fi daan si si làmb te man daan ma ah, yow sa premier combat sa premier combat ba ngay bëre deuxième combat maa ngi bëre sixième combat. sa premier combat waaw ah, léegi kon man baax xam la sa combat yaak ama sa zongale yi cuune yooyu nga fa def xam nga mbër boobu moo wayal rek nga koy zongalee noonu di ko daan ay dem di ko kal ay kalu ancien kal yooyu noonu. noonu daanuñu de. barki Serigne Saliou kii mu ay kii ku doon moom mënu maa zongale kii man may daan ay wax moo baaxul nekk fii du toog. mais ba léegi naan igri nii ak fee ay diñ yaag ñi may daan. foofu du làmb ja nekkul diñ de dama leen man ñi ma daan yow ñi ma daan ñi ma jàpp di leen fooyoo si làmb barki Serigne Saliou xooluñu sax. baye boo de ku ma ci mën a suñu kanam xam nga li paase paase na loolu def nga ko pare garaawul champion nga ndaanaan nga. mais dama la bëgg a xamal ni da nga am combat. man man dégg la ma la wax su ma doon bëreeg benn booy bu gën a ndaw ba xam ne bu ma ko dóoree sax def. dama la koy wax pour nga dugal ko sa affaire français yooyu ñëw def mu neex mais nga toog di yolomal nii di. mooy loolu man kaana man taalibe laa nii laa indi nii leen ma yare barke Sëriñ Bamba nii leen ma yare ñoo la gën a nekk taalibe ma yare waaw bay boo gëmal loolu ñoo la gën a nekk taalibe gëmal loolu mais lamu moo laajul affaire a yolomal affaire u la dëgër yooyu noonu toog ñun yuñu sawar si yow sax waaw musuma ñëw stade nekk biir géew di di yolomal musuma ñëw stade nekk biir géew di yolomal def loo fay def loo fay def nit ñaa ngi xool su ma fa defuloon dara mi ngi so nekk foofu di ibaadu ba combat am jot muy ñëw bëre lam dafa laaj ambiance daw xam nga ruube mooy loolu yëngal jaxasoo bu fee raag tóorante bi Milkzo la a xamal mooy li ma la bëgg a xamal mooy doomu wax lu may def doomu wax lan laa indi suñu combat ba en yow le 21 incha allah dinaa la jàpp Milkzo dinaa la daan man loolu laa gëm te bis baa loolu laa appliqué man yow ma samay subateer nekk bi di leen tareel ak di leen ñuy tiit ak noonu damay ñëw xel mu sel dal ak tey ñëw defal la lu ñu delluwaat ñaareel ñaareel danoo topp sama ginnaaw dan maa yaakaar te maa ngi leen di nuyu waa ñaareel yëpp barke sëñ Bamba. man yàpp ma waa Kër Masar buum ba leen di indilaat defet te du mu mus a tegle defet loolu tax nga jël ma jàmm nga ne man maa gën a nooy Milkzo Milkzo bu dugg ci loolu sànq ba léegi maa ngi lay seetaan làmb làmb defet la max nil ak victoire jugee nga ci defet liggéey la nga war liggéey boo ñëwee jëflante mais bis boo fi diggee waa Kër Masar victoire. non victoire laa leen indil si mu koy neex mu koy naqari waa Kër Masar mbedd Fass dafa am lu ñu la dee victoire laa ko indil far force dafa am lu ñu ma dee dafa am fu ma jugee xam nga fi nga jógee moo tax nga jël jeex jàmm de. jeex jàmm moo doon xoolu nooy xam nga laa def xaar ay buur sita. non non xam nga yu la gën a nooy fop. te jël parce que booy yooyu dafa am a yem rek da ngeen am lu ngeen a xool ci làmb. lu ñuy xool barki alxuraan a kon dèjà nooy. waaw ba loolu nga gis. loolu laa gis. parce que ñëpp noo na jeex jàmm benn comédien la benn woy woy la waaw incha allah incha boo rabbi yow jàppal nag boobaa a duma dara. baax na barke alxuraan karim mi ngi sooy la xamal leen boo entraîné wul da ngay nax say supérieur. Milso mënoo jóge ca defet ba pare mm. ñëw fi naan da nga blessé entraîné nga jël victoire naa la leen jeex jàmm du mbër mu ñuy daane benn action mais da nga a wax ne fi mu toll dafa commencé di andi ay lay ah indi ay lay kay parce que mënoo jël avance jàmbur téye xaalis jàmbur mbër nekk fële di entraîné yow nga war a waaye ji ne dama feebaroon dama nekk tuwaay genre demee noonu loolu du du mooy loolu <laughs> musuma indi ay lay Ah, gis nga li ma koy wax nii Xaadim Anta Seck xam na dara ak ñu tëgg làmb ji ñëpp gis nañ sama tànk bi du meloon hmm. amaar bu dara dul dara sax mu wan leen wanoon leen sama tànk du mu da ngeen naan non nii barki alxuraan dama jógee si combat bi daj lu métti Milisa man la ma lay ñaanal wér feewar métti dem wér instant bi déggoo ma da nga ma ne cocc nga dem nga entraîné fii léegi-léegi nga fi waay fii jàppante indiwu ma fi pour confirmer la rek instant yi mil ko soobee dara jotu ko su ma dara jotoon du ma dawal sama moto Touba wa fii dégg ñëw kon jërul ngay wax jërul dama ne jamono ji may wax yow eh, bay boo bu la lay danti un mois de combat waxantuma la deux mois waaw daan waxantuma la deux mois man ñi may ñoom ndigal fa leen may teg ah ñoom Saalum de loolu ba mu la ko tegee yow doo taxaw. leer laa lay wax. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ba tax na li la làmb baaxoo làmb dafa baaxoo coow ba tax na ma woo fi ñaari xale yi ñu jàmmaarloo wax la waxtaan xas-xasloo waajal bés bi ñi leen di seetaan wala seen i supporter wala amateur yi nga xamante ni dañuy xaar làmb ji mën a xam ne làmb ji fi la tollu mbëri ak dayoo bii la nar am ba tax na ñu leen demee jàmmaarloo dama leen di bàyyi ñu tàggatoo woo seen mbokk ñu ñaanalante ba beneen yoon Milkzo atia. waaw man li may tàggatoo rek. Mm-hmm. mooy di santaat Balla Gaye 2. Mm-hmm. xam nga di sant tamit Wally Seck. waaw di sant Wally Seck bu baax keroog ba mu ñëwee si dëj ba ba ñëwee si di jàll barke Serigne Saliou Mbacké dafa yëkkati cinquante mille francs ma ndax sama combat maag maag fëgal bu ngor bi ma jógee nii dama woon damay daan dem soirée guddi xam nga di ñëw nag mu may lépp boobu léegi ñu ngi doog gisee keroog si dëj bi. Mm-hmm. di ko sant bu baax moo gàddu ko rek yëpp sama maa ngi koy sant bu baax a baax di santaat Balla Gaye 2 di ñaanal yàlla dubales fi mu jëm gën a ko fi mu jóge moom ñoom per Mbaye Gueye ak bépp ancien gulaar bu fi jóge di ñaan yàlla ancien gulaar yi fi des mënu mhm. ma def tamit lu dul sant sama papa sant sama yaay mhm. di santaat waa Kër Massar ak waa Taliba boulangerie ba di sant bépp mafia bu nekk boulangerie 2000 muy koñu dubales mafia simbukat yi dawalkat sareet yi xam nga ñoom dawalkat moto yi ñoom ibulaay ñoom Paul xam nga convoi dóor yi may indi yëpp maa leen di sant xam nga ndax dañuy sonti man ko waa waa route de Boun booy mbedd Fass apparenté yi ak booy tatuwaaskat yi ñoom bamba xam nga booy dañuy sonn si man te man ma nekk xale bu ndaw ñu yëgal seen bion di ko def si man sama combat dañuy da ngay gis nit bu defar flocage bu nekk ay ensemble télémilitaire loolu xamoo fu ñu koy jëlee mhm. combat Milkzo day jàll ñuy téye ay booy Milkzo di leen jàpp te du ma ko yëg après laa laa ko yëg xam kon tey booy dama leen di di ñaanal yàlla booy ñu jàpp ci combat bi passé ñëpp ñaanal yàlla yàlla waat leen ba ñëw waat combat bii nii di si mel ay ñoom dev xam nga ay ñoom bémaar ay yeneen booy ñoom ñëpp xam nga di sant nag di sant sama politicien bi waaw muy Souleymane Ndiaye lépp manqué ma dara ndax moom Souleymane Ndiaye DG leen nag naa koy ñaan mooy combat bi bëgg naa si génn dem entraîné nañu même mu nekkee sax benn un mois xam nga moo xam may dem mais bëgg naa si laa ko dem entraîné nekkee benn un mois te xam naa incha allahu rabbi dina def ndax mu ngi liggéey réew lu am solo waaw di sant Jamila bu Belgique sant Jamila bu Belgique di sant Pape Demba di sant per Baba suñ coach si écurie yi xam nga di sant ñoom Ousseynou ñoom Assane ñoom Lampar ñoom taala xam nga ñoom Matar ñoom Junior ay ñoom Ndiaga ñoom Abdoul Gaye boo yëpp ñoom Teef xam nga di sant sama grand Boulon ak sama grand Naanu ak du Camara booy may jàppale yëpp maa leen sant waa carrière ba xam nga ak chauffeur super yeeg ñëpp borom sareet yi ñëpp daal fàttewuma kenn di sant sama famille famille Ndiaye ak famille Guèye ak famille Sakho yi di ñaanal yàlla famille Sakho bi fu des yàlla may leen xam nga gudd fan ak wér gi yaram ñoom ñëpp xam di ñaanal yàlla Balla Gaye yàlla jox lu mu uufee njaboot ji xam nga yàlla tamit dooleel ko mu uuf ji ok di la bëgge di bëgge jeex jàmm di bëgge gaa yi bi. Mhm. waaw di leen wax ni yeneen mooy daax incha allah rabbi. bu neexee waaw ok. jeex looy tàggatoo. waaw man damay sant euh, gars yi sant sama combat yëpp ne grand Abdou Diop ku ci mel ne maam Thierno Libersis borom añu neex cosmétique di ziar Baye Modou Kaolack euh, borom Libersis ziar ñoom Mountakha ñoom Modou xam nga ñoom Bàcc ziar gars yëpp ñaatale bi ñoom Arafas xam ñoom Modou Degen xam nga di bëgg gars yëpp daal ñoom Maas ñoom Daouda Diop suñu grand yi baax Pape Sarr sama président fan si club ak moori Kane ak euh, Modibo Sarr ak Thiat bu Gannaaw Dakar Pape Bey ñu ngi leen di di leen nuyu ak Maako Mbës ñu ngi leen di di leen wax na booy waaj na booy waaj na booy waaj comme ni daa ñëwee man damay bëgg saa ñëwee Sarr rek saa ma daan gën a bëgg parce gis rek day jaral ma tay la fa bagaan kon ñoo ngi leen woo ñoom ñëpp di nuyu ki nga xam ne moo ci Pam Ndiir grand Pam Ndiir di nuyu Linzane bi yëpp nuyu Baye Modou Diop borom di nuyu Talla jeex jaamu taalab jeex jaam kenn la ci man day sonn ci man xam nga ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Mourou Fall jeex jaam bu Tuubaa moom tamit dañ koy nuyu moom tamit day sonn suñu combat ku ci mel ne couvert ku ci mel ne Bala Cissé Salier xam nga Tafa Fall mafia Tuubaa bi yëpp maa ngi leen di bëggee mafia ñaari télé bi tamit noonu mafia Grand ñoom koy nuyu moom tamit di nuyu waa mboor mboori ñëpp ki mel na aar booy bool suñu grand frère Bala góor soog suñu grand la xam nga mag tamit ak caar mboor ñoom ñëpp ñoo ngi leen bëggee ay quatre plan Bala 3 ndigal Fall tamit ñu ngi koy bëggee Bala 2 di bëggee ñi son sama combat ku ci mel na Aara Diop sama rak moom tamit day son sama combat ku ci mel na Omar Diop sama grand frère la moom tamit ku ci mel na Mabos américain Mabos américain borom Liberté 6 ñoo ngi koy bëggee moom tamit ku ci mel ñoom tamit leen di bëgg bu a baax ku ci mel ne Mori Kane borom marché ngelaw day sonn suñu combat du ñu may xaalis bëri ku ci mel ne Moussa Yaxya day sonn suñu combat dañuy daggal billet di ñu ku ci mel ne ñu booy ñu demal ku ci Gana Jibi Lour ak i booyam ñoom bay xam nga gaa yooyu ku ci mel ne Njambe Seen di bëgg daal di leen wax ne ma limee damay képp ku déggul sa tur rek xamal na jeejaa moo ngi leen nuyu di la bëggee Grand Seen ndigal tamit suñu mag suñu amee suñu combat day taxaw dara dafa fort da ci ñu ngi koy jégalu coono boobu yëpp xëy na sax jëruñu ko mais mooy loolu la moom benn genre waa ñaareel non non sax xama rek waa ñaareel limite ñi sonn si man ñoo bëri waa ñaar yi ko ñu Fourba ko ñu Bëy ba Grand Dakar ñoom ñëpp waa Medina dem ba Wakaam fekk ba Paja ñoom Jaawa ñoom Copet ah ñoom ñëpp ñoo ngi leen di bégee ñoo di dañuy sonn si estade dañu ñëw tëggal ñu suñu bu ndëgër ñu dem estade ñu tëgg foofu mu neex ñoom copet xam nga ñëpp dañuy sonn suñu combat ko ñu mel a Grand Ndiké moom tamit day sonn suñu combat

non man mooy la mafia yi ñoo bëri nag. waaw bilaay loolay problème koy tënk rek. mais bëgg naa yëpp waa Pikine xam nga. Pikine États-Unis ñëpp ñu ngi leen di bëgg di wax ne jeex jaam mu mooy jox banaana yi rek. xam nga mooy jox fruit yi banaana yi. mère mère Ulay maa koy ziaru baax moo Kadia ak sama yaay Cula Ndiaye ak Idi Sakho ak Ndoy sama ménageur waaw ñooñu laa fàtte woon maa leen bëgg bu baax surtout maag mère mer mooy jox banaana yi wulay quoi. ah ak Thilo Ndiaye maa leen di bëgg bu baax a baax. suñu papa Baye Daala bi fi jógee fan yii su xarab àjjana firdaws gi nga xam ne ñoo di ay doomam ñoom Omar Diop yàlla may leen xolum muñ maam Thierno dem ba benn bras suñu waa kër ñu ngi leen di nuyu. yamal benn leen di nuyu bu baax a baax ñoom <laughs> ak Sayer Sayer Kanji ak waa équipe am ñoom Sayer ak Nguur ak Soda bàcc Kanji. ni lay deme ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbër ñu toog waxtaanee ko xool li nga xamante ni nii mooy dëgg ñu waxtaanee ko xool li nga xamante ni ñoom moom la ñu liggéey wala moom la ñu waaj ñu ñëw waxtaanee ko fii ñoo ngi jox dig daje beneen yoon ci jàmmaarloo ci wasaare làmb jërë ngeen jëf.